ñu ngi beesal wëllëre ndax Serigne Bachiru moom lañ dénkoon Kaolack suma bàyyi nena sëñ Modou Moustapha bu ñëwaan day ànd ak Serigne Bachiru ne ko Khalifa Niass mu ne ko ah mu ne ko ngan gi Bachiru moomu ko yaa ko moom ñu ànd reewandoo kafandoo ba bërsëtee sama bàyyi daal di jël am xar mu xaw a yemaay ci dooleem ne yotal leen ma ko Mustafa ne ko na mako ko ci nganu bashiru gi Bachiru ñu joxal ma ko dana ko jël waye buñ togué ba muy bu gëñi bi mu jëlat lu mat gëtt xar lu mat juroom ñetti xar yu rëy rëy bo la ca dara ñëw na ko bi day ngan gi day ndessit ngan gi day mi ngi ni manam mu delloo teraanga di manam eh, lola lola moy dem di dem di dem ba yàlla yóbbu sëriñ Bachiru waaye delloo si sëriñ Muntaqa mu toog palaas palaas ba fees ko dell doon nit koo xam ne nag nitu jàmm wax naa barki déemu wal fajir dañ ma doon laaj ci yaakaar naa seetaan ngeen ko ñu ne ma diggante sëriñ si ma ne li ma ci gën a neex mooy moom ñëwul rek moom sëñ Muntaqa ne damay damay abstenir su ma yoon ci nguur gi parce que ñom dafa am mission am lu ñuy liggéeyal li ma ko gën a yéemee mooy nee nañ am na taalibe jox na ko un milliard ñii na deux mu def njuumte génn lislaam mu oo ko ne ko yaa tooñ tuubal loolu foo foogoon naa ne amatul ndeketoo yàllaa ngi dese ñu baax ba léegi di leen rënk ku mel ni Sëriñ Mountakha ñaareel bi mooy li ñu xamoon ci gan gan dañ ko daan tibbal di ko yët yët leen gan gi waaye gan goo xamee ne inverse bi la moom mooy mooy boobu ba léegi Kaolack yëpp fa la lekkee sans exception ñi sonnoon ñëpp bég ñi mosu doon a lekk yàpp ñëpp yi lekk yàpp ñi mosu doon a naan boisson ñëpp ñi mosu doon a am xaalis ñëpp Kaolack fierté boobu nga yaakaar ne hasard la yàlla jox xale yu ndaw yu toll ci huit ans ñu ne sëñ Tuubaa boo ñëw Kaolack kon mooy sëñ Touba mooy sëñ Touba ci jikko ji mooy sëñ Touba ci comportement ba mooy sëñ Touba ci liggéeyal li mu maamam gënoon a bëgg mooy école bu rëy bii nga xamee ne ëllëg wax naa ko ko kenn dootu fi jógee ne yaa ngay dem ci réewu arab yi parce que bàyyi ña su nee na arab yi ñooñu jox diine ji mais wàccee nañ ñu ko fii ngay nekk jàng ba pare comme man ba am licence ak nangam gëm mag ñi nag xam ne ñoom la kon man li ma ci gën a kii ñaar la mooy ngan gi laa façon maanaam boobu këru diine yëpp man de suma kër bër bu set añatuñ reeratuñ ndekkeetuñ barko na naan waaye mbaat bu ñibbi suba waaw ñëpp a koy laajte nag ci këru maanaam lim am ci saahir mu bokk ko sëriñ si yëpp nag ba pare nag ak ree ji ca canaama tànk yee baaxul rek waaye ñoo waroon a ñëw gan mooy nu nga ji ma ne ko déedéet lu nekk am na exception yow ñëpp war a ñëw fekk si la ndax tey jii yow yaay amirul mu'minin yow yaay kilifaak ñëpp waaw ku mu neex ku mu naqari ca jëfee na ko ñun sunu mag la ñun ñëpp ñu ngi ci suufam ca jëfee na ko nee naa ko bu tabaski jotee xar ya gën a rëy nga ñu indi yoo xam ne amul njëg gi moom laay xaram mii may jox moom moom laay rendi fii jumaa ji keneen ak keneen ak keneen bu gàmm jotee nga tànn nag yi boole enveloppe yi boo boole lu ñu la wax ma ne ko murid yi day waa kër Sëñ Fallu dañ ne dañ may tereel si tànn naa bés nag la le 26 27 28 di ziara ba ndax bés booba nag moom yow laa ko tuddee waaw mun ne ma yëg naa ko ma ma kontaan ci lool bég ci lool ma ne ko loola luñ luñ lay lu lu nit di def rek yow lañ koy defal ci yoon mi ci lislaam lu ñuy def rek la yow la yow lañ koy defal kon ci tënk lool mooy àndoo gi bi biñ ma ko laajee maanaam li tubaab bi bëggoon amut ndax ko mel ne sëñ Mountakha